ci yàlla nañ jóge ci yàlla nañu delluwaat naqar ak tiis xëy daanu ci waa géejawaay Malick Sarr ñu gën ko xam ci Sarenzo membre fondateur bu centre géejawaay hip hop xëy dëddu àdduna ajjuma ci guddi ginnaaw bi mu gungee xaritam boobu di fuumalaat ñu xëy tey doxantu fii ci géejawaay waaye liñ fi jot a nemmeeku mooy selaw kenn nanguwut a wax kër gi mu yaroo ñu fekk fi meer nenne mu ñuy xamal relation bi mu am ak la défunt. ma sow seen wàll. ñu bëggoon xam yan wax ci bu ma ciy wax dama ciy sawar ndax sama doom la. Sarene Sow su ma ciy wax damay sawar ndax suñu doom la Malick Sarr. dafa baax ñépp la def ay waajuram ci géejawaay moom bu ànd sa doom xam la sax def na la yaayam xale bu yaru la xale bu am jom la Saarem Zoor dafa daw dawul xare dafa daw ba yàlla fekk ko ci rek yóbbu ko mais ci moom fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge xale la am na jom am na fula am na fayda lekkul dara bàyyi kenn ba ñuy tàmbali ñu leen naan bokk benn tey ba ñu mën a ñëw ci xaw ma ji pop bi ñuy wax fii ci Wakhinane Nimzatt ci seen foyer bi fii xale yi ñu gis si ñoom avancement yu baax ñun ñaan yàlla rek ñuy yokk ba yëg ko ndeke yàlla li la namoon ci moom waaye fi mu jëm yàlla ko gënal fi mu jóge jàmbaar la bëgg na ay mbokkam bëgg na ay dëkkandoom bëgg na ay àndandoom bëgg na ay xaritam maalik Sarr tey kenn ñàkkul jaxaay moo ñàkk naan moo ñàkk Géejawaay ci boppam moo ñàkk Sénégal moo ñàkk ku baax xale bu baax Sarr sa bu la na la yàlla jiitu fa nga jëm fekk fa yiw yàlla yal na suuf oyof ci kawam yal na ko yàlla xare àjjana ndax liggéey na ko fii ci kaw suuf fi mu jëm yal na ko gënal fi mu jógee yàlla bu mu ñàkk dara alaaxira léppam ci àddunaam ci lu métti yal na yem fii ci àdduna waaye lépp li ci des mu doon lu baax ba abadan ndax sama relation moom sama doom papis papis nilon xaritam la seexam la Sarenzo loo gisee ñu koy wax Sarenzo ndax li muy ànd xale njaago yi xam nga jaxaay moom doo xàmmee kii ak kee ñoom ñëpp benn lañu loolu tax ñu nekk ci bokk benn boobu loolu moo ma booleeg moom ma bëgg ko comme ni ma bëggee papis mii ma jur papis nilon mii ma jur bëgg bu ko romb laa bëgg Sarenzo mii maa ngi koy ñaanal jàmm nee naa la fi sànq ba muy dee nii ba muy génn àdduna nii mu ngi bàyyi ay xar mu doon yar di jaay moom xeebul benn liggéey mu ngi dem mu ngi mu ngi ci rab bi mu ngi ci yeneen luy avancer doomu aadama ci kaw suuf rek ak luy dimbal doomu aadama ci kaw suuf rek moom mu ngi ciy jéem. tukki na bu ko neexoon toog bitim réew bañ a dellu si waaye dafa dem damay delluwaat Sénégal jàppale ñi ma fa bàyyi jàppale sama bopp jàppale samay bokk jàppale samay xarit mi ci lu baax ba yàlla moom ko ci lu baax. fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee. mais nekkoon ànd ak bu ñu àndaan ñëw fi bu guddee dañuy fanaan dañuy fanaan kër gi daal këram la laa la mën a wax doomu jaxaay yëpp sama kër gi fii ci Wakinaan fii seen kër la ndax rakkam ak asilmari Marim di sama taabu jigéen bi ay morom lañu. Oumy Touré moom mais magam bee di Mayrem Sarr maa ngi leen koy jaale bu baax ak seen i yaay ak seen i bàjjan ak ñoom Awa Sarr ñëpp maa ngi leen koy jaale bu baax ñoom ñàkkuñu ñun ñu ñoo ñàkk ndax moom moo def boppam musulman def boppam chrétien def boppam lépp kon moo boole boppam ci ñëpp moo tax tey mu nakari ñëpp ndax buñ ko xamuloon wala boolewuñ ci duñ ko xam waaye nag dafa dee ndaw rek looloo ñu metti loolu rek lañu am ci Dakar bi. dafa dee ndaw moom sax jotuta yeggale waxtaanam ndax ay jooy ba ñu demee ci centre bi mu doon fréquenté ñoo ngi fa fekk benn collègue am mu jot nu wax ci yenn ci ay jikkoom bon Sekisto Rasta Bamba di def reggae acoustique nekk fii si Djib op Géejawaay bon maa ngi jégalu manière bi may waxee ndax sama xol moo xaw a fees waaw dafa sama fees trop trop trop trop trop waaw ci décès Sarene Zo waaw parce que dafa nekk koo xamante ni dafa contribuer lu bëri ci développement Guédiawaye nekk un volontaire nekk koo xam ne ne boo yu bëri war nañ jël si moom référence tey man mën naa la wax ne tax tey ji bopp bu taxawee moom bokk na si ñi ko xalaat kon donc très franchement ñu xëy xëy benn jour nii rek ñàkk ko ci ñàkkin bu demee nii dañ naan inna lillahi wa inna alayhi rajiun di ko ñaanal di ñaan yàlla nag lépp loo xamante ne moo doon ay qualité am booy roy ko ci ñoom ndax hip hop Guédiawaye jëm ci kanam merci beaucoup sama xol moo xaw fees moo tax tout moo ko mots quoi merci. mu ngi xamal ne Malick Sarr ku baax la woon ku yaatu ku am jàmm ak ay mbokkam ak i dëkkandoom Malick Sarr ñu ngi koy ñoo ngi koy ñaanal fee mu jëm yàlla suñu borom xare ko aljana suuf oyof si